dajul jërë ngeen jëf jëf ju xel dajul noonee la journal l'observateur xëy tënk li xewoon démb ci stade Ngalandou Diouf bu Tëngéej pil yéenekaay bi fitna ji wunni war na ci nawetaan yi ASC Thiawlène ak ASC Giff ñoo doon demi-finaalu Babakan Roch yéenekaay bi nañu ba ñu footballé ba yegg ci 74e waa ASC Giff am penalty dugal ko ca la jàmmu xeer ya tàmbale naaw kurpañ ya tàkk pëlis taal grenade ya am ku ca ñàkk bakkanam di benn xale bu góor bu ñu naan Amadou Ndiaye amoon fukkeet ak juróom-ñeent docteur Mbaye di médecin chef district bu di leeral ci l'observateur l'observateur nee nañu wàññi nañu fanweeri doomi aadama ak juróom-ñett yu ci jëlee ay gaañu gaañu ñaar fukki ak juróom-ñaar ca centre de santé bu géej fa lañ leen ñett ña ci l'hôpitalu Pikine am na kenn ku ñu ci rawale ci hôpital général bu Grand Yoff am na it sa benn xale bu góor bu toll ci fukkat ak ñaar bu ci jëlee ay gaañu gaañu yu métti ba ci l'hôpital principalum Dakar fa la ñu mujj ak moom rakki l'observateur di journal Tribune wax ñu ci xëtam mu njëkk ne match nawetaan bi woon démb ci stade Ngalandou Diouf bu Rufisque ci fitna ak jëye ci la am kenn ku ca faatu ñu bari jëlee ci gaañu gaañu record yéen a kay doolu ñu ci ne ay du yem ci boppu borom moo waral ba ñuy yore nawetaan yi ci diwaanu Tëngéej di ODCAV bu Rufisque jël dogalub dakkal nawetaan yi définitivement ci Rufisque Rufisque googee grand place mi ngi ñuy wax na yàlla baax ne tuuti ko noon danañu dund démb ci stade Ngalandou Diouf jéyee ji ñu fi dundoon ci stade Demba Diop bu Ndakaaru yéen kay bi dañu waa police nee nañu benn nit moo ci ñàkk bakkanam waaye ñi fekk mbir mu di témoin waral gaañu gaañu yefu am vox populi bind ci xëtam mu njëkk ne ay nawetaan yu ànd ak horreur la ñu dund démb ci Rufisque bakkan tëdd na ñu bari jële fay gaañu gaañu ba mujj l'hôpital stade ba it gaañu yàq nañu ko yaxeet ministre des sports di Matar Ba vox nee nañu wax na ne bu ñu moytuwul ci dakkal bépp activité sport bu indi fitna ci lañ jëm ginnaaw fitna gi woon démb ci nawetaan yi ci Rufisque ñu wax ci fitna ji woon bërki démb ci arène nationale ba Papa Sow mi ñu dóoróonum dënd ci jë jëba teppeeku sunu lamb mi ngi ñuy xamal ne xóotuwaayu gaañu gaañu bi toll na ci juróomi centimètre borom gaañu gaañu yi di Papa Sow di wax ci xët mu njëkk sunu làmb ne mbir yi du ko bàyyi mu sedde noone moom Papa Sow wax na it ne ñaw nañu ko juróom-benn ñaw ñaw ñawuk Abdoulaye Diouf ci wàllu politique doonatul lu ñu lam-lamee ci réew mi suur soi nañu firnde langi ubbil yéenekaay bi ba mu demee démb ca Grand Yoff doon teewe présentation programme bu Cheikh Bakhoum candidat Benno Bokk Yaakaar ca mairie bu Grand Yoff fa la waxee Cheikh Bakhoum ne ko dëgg la doomi Yoff la waaye it doomi Grand Yoff bu mag la kon jàppal ne ngoonuk 23 janvier Grand am ñaari maire muy yow Cheikh Bakhoum maire bu Grand Yoff ak man Abdoulaye Diouf Sarr maire de Dakar kamu fekki di Cheikh Bakhoum la Sénégal mi ngi ñu tegal ci xët mu njëkk programme bu mu tuddee grand yokkute bu mu tegal waa Grand Yoff Le Quotidien ko ngandi programme sax programme XL la leen tegal moom borom programme bi di Cheikh Bakhoum directeur général bu ADI di xam ne ci xët mu njëkk journal L'Info ne programme bi mu bëgg a doxal ca Grand Yoff waxu ko ngir bëgg a neexal waxtaan baa mu bëgg a falo programme la bu mën a nekk te jàpp na ne dafay ne journal bi téeméeri mesure yi mu xalaat teg ko ngir développement local bu Thiès Sénégal ñi fi dugal variant omicron bi mu di cas importé source waa nee nañu kilifa yu yore wàllu santé ci réew mi nee nañu ku ñu ci faj ba nga wér dañ lay delluwaat fa nga jóge woon Sud Quotidien nañu autorité sanitaire yi taxaw nañu temm ci jàmmarloog variant omicron bi kadduy président de la république Macky Sall ci xët mu njëkku la tribune mi ngi wax ci omicron na nañu bàyyi nit ñi ñuy